bokk yi gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp di balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jéggal te musal nu ci jàngoroy xol ak jooj biir yaram tomb bi ñu fas yéenee fàttalante tey dafa jëm ci wopp jooju ñuy wax sarataan sarataan moom la ñuy wax cancer wolof yi di ko wax góomu biir yaram góom ñaari xaaj la góom boo xam ne dañ koy xol li muy gas-gasi ñu raxas takkaat ak góom bu ne ci biir yaram machine man koo xool gis ko waaye am na góom buy ne ci biir yaram boo xam ne machine mënu koo gis gët mënu koo gis bi lislaam bi ñëw nag li ko taxoon a jóg mooy tabax nit bu ca jógee tabax keneen kooko tabax keneen ba kër gi daj mu génn ci penc mi ci ëtt bi ba néeg bi daj mu génn ci ëtt bi bu ëtt bi dajee mu génn ci penc mi bu penc mi dajee ba nga xam ne gisatul kum defar mu sogo seet dëkk yi ko wër loolu nag moo daan tax loolu lislaam di def ci nit ki par kenn moo daan waral xel mu dal ci jëmm ji nga xam ne lislaam noppi na ci moom xel mu dal nag dara jiituwu ca boo tiimee aw ñam sam xel na ca ndax amoo yenn xalaat waaye boo gisee ndox mu setit mees mën a naan nga naan ca waaye koo teseel ci mbedd mi rafet ci moom jort waaye lu waay amit nga yéene ko ko loolu la lislaam daan jëmbat ci xolub nit ba tax yàlla tudde xeetu yonent bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen ji xeet ndax kenn ku ne la nafe moom bu mele noonu ñu wax da koy yéene ñépp ndax day bëgg xel yépp dal moo tax waykat bi ne ku bëgg dund dund goo xam ne gu teey lay doon bu gisee lum lekk man caa lekk bu gisee lu ñuy naan mu naan ca te kum taseel ci mbedd mi rafet ci yow njort ku ko bëgg dangay fexe ba wér walla nga xoddiku balaa lakkale dikk xoddiku gi mooy fexe ba sab xol set wicc du rax dara du rax bañ nit du rax añaane ko ndax xol bu rax mbañ mbañeel di bañ nit ku la defu dara walla nga di mu di ko añaane ci la jëm si nee na xol bu rax dara ci xool nit di ko bañ walla xool dara di ko bañ mi ngi mel ne ku takk ak càlla la ci baatam takk ko ci garab gu gudd ba noppi nag téye ab car téye téye yin wu yemamaay nga xam ne buy wàcc car bi rek buum ngi di ko xerandi yàlla nu ci yàlla musal moo tax xoddiku gi ab jullit di xoddiku ba loolu bañ koo dal mooy mu dugg ci biir ñag bi lislaam ñag jullit yi taxaw ci biti di leen garde bañ ñu génn bañ lu dugg fekk leen fa bañ lu dugg fekk leen fa ci ay jàngoro yi leen di wàll walla nii ñu mel keneen di fa dugg ba di leen ba di fa indi lu lu ñu xamutoon di leen rax ci tënk daal jàngoro ji ñuy bëgg a waxtaane góomu biir yaram la sarataan cancer waaye bokkut ak cancer bi nga xam ne dañuy teg nit ki ay appareil gis fam nekk yal nañu ci yàlla musal bokkut ak it bi nga xam ne jërul teg appareil waaye booy xool di ko gis ci jëmmi waa ji moo xam ne ci tànk wala ci loxo loolu yooyu yëpp yomb naa saafara waaye góomu biir yaram bi nga xam ne kenn mënu koo saafara yàlla rek moo xam fi muy nekk ci biir nit ki ci xol bi lay nekk lu tax yàlla rek xam fa mu nekk ab xol bu fekkee bi ci nit yor moog bi jur yi yor ñoo niroo fa ñuy xamee la mu ëmboon day fekk weesu na ndax bala ñu saa jot day fekk kooka bàyyi ko na fi ba noppi wala loola bàyyi ko na fi moo tax jàngoro jooju muy kañaan añaan añaan mooy ki kim dal dafa añaan day añaan waaye jimmi jàngoro ji mooy kañaan yàlla nu ci yàlla musal jàngoro yu xol la joo xam ne bu tàmbalee wàllaate du fa bàyyi kenn ñépp lay faagaagal xeet yépp lay faagaagal xeet wu mu xas ba dugg rek jeex na dutu génn balaa bàyyi ñépp jeex ñépp jeex nag mën nañoo bañ a faatu dañuy dem ak a dikk waaye li taxoon yàlla jox ab xol nit mu des a denc yem ca war a denc amatut fu mu denc dara lu baax yal noonu yàlla musal ci loola waaye bala moo dugg ci xeet day tàmbalee ci ak kër kër gum tàmbali buñ ko gaawut taxawal génne ko kër ga kër ga moom léegi tey mu doonub gent bu ñuy nettalante mbooloo mu mu dugg it lu mbooloo ma jàppante jàppante bu xasee ba dugg ci seen biir bala leen a bàyyi bu leen munta tàggale it dana leen teg ci yoon woo xam ne bu ñu ko wàccut bu ëllëgee cib safaan lañ jëm yàlla ñu ci yàlla musal kon daal jàngoro jooju wuute wuuteeg jaasi ju seytaane bocci di ko dóor ci nit ñi ndax day yàq cofeel gu amoon diggante sa nit day yàq buum yi nga xam ne yépp mooy boole nit ñu war a bëggante moo xam muy nit ki dafa bëgg nit ndax diwoo ko jur ak diw wala daf koo bëgg ndax daa am alal wala da koo bëgg ndax dafa nangoo liggéey da koo bëgg ndax dafa jub yooyu saa bu kañaan duggee rek buum yooyu day tàmbalee reweñ ci ko par benn ba ba muy jeex diggante mag kooka bu ñu bëggee wax carte d'identité kañaan nag mooy lan ni ñu koy xame mooy daal nit ki lu ko dëgmal ci lu baax ki añaan dëgg lu dëgmal nit ci lu baax jëm ca moom te du wàññiku su xoolee ba xam ne ci diw la jëm nu muy fexe ba du àgg ci diw rek lay xalaat ci lay xëy li ca gont waaye su ko nit ki yoree it mu xool xool xam ne moom loola dugg na ci moom te du génn nu mu ko ñàkk nu mu ko tàggaleeg loola rek lay ñaan yàlla saa su nekk yàlla nag ñaan yi muy nangu mooy ñaanuk gu jëm ci lu baax yàlla na yàlla def ci diw nangam te fekk muy lu ñu war a bëggal diw yàlla na nu ko yàlla déggloo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon maa ngi leen di dénk ngeen moytu bu baax a baax a baax lii dukkat jëm si ci yéen luy dukkat nag bu fekkee fa muy dukkat jëm jegewut fa mu taxaw balaa yàgg mu fekk ko fa mu ne dukkat na jëm si ci yéen ñu ne ko lan la mu ne jàngoro ya daan faagaagal xeet yu jëkk ya kañaan ak bañante dal ne bañante moom kañaan moom ak seeguma ci waaye bañante moom nii lañ set di def kawar noonu lay def ab diggante bu rafet wala noonu lay def aw xeet wala sax waxuma nii lañ set di def kawar waaye ni muy def pas-pasum nit ba duutu am dara ci diine yàlla ñu ci la musal ni muy ni muy def diine moo raw ni muy def kawar ndax bu ñu seetee ci li alxuraan andi di ko nettali ci jàngoroy kañaan ak añaan kum daloon lu yomba dégg lay doon suñ demee ci alxuraan danañ ci fekk yàlla di ñu wax ne ñun nit suñu sababu ñëw fii ci kaw suuf dara la la ko loolu kañaan rek ndax suñu borom ba mu bindee li ñuy bind daf ne su jóotal leen aadama mi maanaam jox leen ko cër ñépp nangu ba mu des iblis mu ne iblis lu tax mu daal dafay indi yax yu rëy ne ko lii mooy cosaanam lii mooy sama cosaan yàlla ne ko nag déet man laajuma cosaan man kenn ku nekk ab xolam laay xool fam fam teg sama digganteeg moom kon waajal mbugal mu mag mi ngi lay dal daal di koy génne ci kuréel boobee doonoon ay xejj lool te sosoon rëkk ci moom di xam ay secret di dégg ay ndey boobee mu génnee ci kuréel ga nag la laxasaa yu ne aadama nag danaa xeex ak yow xeex boo xam ne du doon xeexub secret waaye dama lay njéeméerlu damay jàkkaarloo yow digg bëccëg fii la yàlla dugal ne la uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan xaytu shituma lii mu leen di tere la danaa fexe ba ngeen dem ca yàlla na yàlla rëbb iblis ba faw lam leen wan mooy daf leen a dugg doon seenub xarit ba xam seen mbootum kër xamal leen ne leen te nit it bu fekkee biir bi seen mu gis la subaak ngoon li ngay am ko su néew nga di ko ca yët as lëf léegi léegi tey rek koo lëf dox seen diggante mu leen garab gi leen yàlla nit daal lii sabab si du dara lu dul daa xam ne moo leen bind waaye rëccu na ko nag ndax ëllëg gis bi yéen ko fi yéen koy folli bu ngeen ko lekkee daal dégg naa lu ñuy wax dee ma nga ca kanam man xam naa ko gis naa ko yéen xamagu leen ko waaye garab gi mu leen tere day bañ ngeen dee rek maanaam daa bëgg dee yoot leen ba jàpp leen ndax garab gi moom ku ci lekk moom dootoo dee moom hal adulluka ala sajaratul xuldi wa mulkin la yabla bopp yi tàmbalee yàqu ñu ne aa ndekete yow moo tax ñu dañu ko tere te foofa it doyul ñàkk a doyul doomu aadama dañ koo doon ne fa sori ndax ku la ne sama kër ga kër gi tabax nañ ko bu àgg lépp a ngi ci ci waxee ni jamono manquéwul dara lu la neex defal waaye nag frigidaire su ndaw see frigo baar bu ndaw bee bu ko bu ko ubbi moom sama yëfa fa nekk donte caay bu jàng cay langit dëgg-dëgg ngor moom mënta wërta mën a weesu kër gi lépp ba mu des as as frigidaire su ndaw soo xam ne tekkiwu dara waaye kooko taxawu leen buñ xëy xëy na ca pelam sax fa akala minha fa badat lahuma sawaatuhuma bañ ca lekk lañ tàmbalee gis mbugalum suñu borom te kañaan moo leen ko teg ku añaan moo jëflanteeg ñoom kañaan ku añaan jëflanteeg ñoom mooy fañ dëkkoon añaanal na leen ko waaye yàq nañ koo xam bañ koy laata xam musiba am na bañ ca nee pelem sax rek lañ tàmbalee gisante kenn ku nekk te gis yaram morom te amutoon yàlla nu yàlla musul ci kañaan mu ne ñaari doomi aadama itam day kenn ka ki alxuraan di wax naan watlu alayhim naba abnayi aadama bilxaq id qaraba qurbana fa tuqubila min ahaduhuma wala yutaqabal min al axar kenn ka rayoon moroom ja loolu rek kañaan rek moo tax mu rey moroom ji waaye ba mu ko reyee xam na ne kañaan amul njëriñ ndax xamut nu mu koy def foofu it dooy dig doomu aadama feeñ na fa ndax ñaar ñooñu bañ reyantee kenn ka yanu moroom ja mu des gan xamut nu mu koy def baaxoñ mii la yàlla yebal mu wan ko nu ñu koy def fa baasa allahu guraban yabxasu fi l ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata axi fa la tàmbale rëccu yaa waylata ajastu an akuna mithla hada al gurabi fa uwari sawata axi fa asbaxa min annaadimin daa yàlla da ko woon ñaari baaxoñ yi xeex ni mu doon xeexe ak mbokkam moomu te xeex ak kudutu kudut fayu du ndam ndax kooku da ko ne loo ma mën a defit man du ma fayu ba mu rey ko yàlla wan ko nag ñaari baaxoon yi xeex ñoom xeex bu wér ba kenn ki rey moroom ji waaye dafa gas ciw sàll amuti loxo amut peel amut pikk amut dara waaye sàll wi la gase ba mu xóot mu dugal ci moroom ji suul mu ne aa kon nekk nii la ñuy def ku de nit bu demee ba yàlla ne ko la xadd xalaqna al insana fi ahsani taqwim yàlla doon na loo ko suuf si anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha mu dem yàlla xamaloon ko lépp allama adama al asmaa kullaha mu dem ba baaxooñ wëlbati ko di ko jàngal te baaxooñ nekk ci kilifteefam kañaan moo ko ko teg waaye loolu it dal na diggante seydina yuusuf ak i bokkam id qaalu la yuusufu wa axuhu ahabu ila abina minna wa naxnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin uqtulu yuusufa aw itraxuuhu ardan yaxlu lakum wajhu abikum wa takunu min baadi xawman saalixiin ñun daal gis nañ ne suñ baay yuusuf la gën a bëgg si ñun lu ngeen ci xam ñu ne ah suñ baay day daa réere mbir rek waaye ñun ñëpp ak njabootam lañ nañ sàkkal pexe yuusuf su ko defee moom du am ko muy xool ñun mu xool ñu qaala qaailun minhum laa taqtuluu yuusuf wa alquuhu fi rayaabati ljub bu leen ko rey waaye seet leen ak jàjj mooy teen buñ gas lu yàgg te bënnut amul ndox ngeen sànni ko ca rek bu ngeen demee ne ko réer na lu gudd la waaye loolu lépp kañaana ko lal rek mujj na doon buur ba yilif réew mépp yilifal leen ñoom asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa ada wa asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi daloon na ko ci digganteem ak waa Makka ba mu gënee àdduna bokk ci giir yu baax yu mag yi bokk ci néeg yu mag yi bokk ci yax yu mag yi xool nañ ko xool xamuñu luñ ko sikkale ndax amoon na fasaaxatul lisaan moo ko ëpp la ñëpp amoon na ak maandu ci atteem amoon na ak maandu ci ay ndénkaan amoon nay maandu ci wet goo ko jaaree rek da nga ca fekk mu raw ñëpp waaye alxuraan ji muy wax daal jaaxal na leen ñu ne ah alxuraan ji de wax dëgg yàlla ci balaaxa beeg bayaan bi moom ak loxa bi ak ni muy nose wax kenn mënut a wax lu ne mel moom te booba jamonoy wax la woon ñu ne waaw lu tax lu tax yàlla wàcce woon ko ci anzimu makka wala anzimu taif bokk lu mu di ko wàcce ci wàjji yàlla ne waaw ahum yaqsimuuna rahmata rabbik law laa nuzila hada alquranu ala rajulin min alqaryatin azim ahum yaqsimuuna rahmata rabbik ci lay waxe ba naan am yaxsudu nnaasa ala ma aataahum allahu min fadlihi faqad aatayna ala ibrahima alkitaba walxikmata wa aataynaahum mulkan azima moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon juróom a ngi nii yoo xam ne ku ko moytu wut léegi tey nga dugg ci daaira bi ñuy wax daaira kañaan daal di añaan mooy ba ca jiitu mooy bañ nit ki romb laag daaba ju baax rek gaa yi naa wax dëgg yàlla daabam ci otom bi te rafet na moom bii da xanaa mooy bi mu jigéen ñépp rafetlu ko yéene ko ko ndax nim nangoo liggéeyee ndax kim doon daal ku añaan na ca tonet daan ne ah man de sëñ bi am na ci oto yoo xam ne moom di ko war moom dox sax ma ko gënal tàmbale yàq bopp nit ñi ndax oto boo xam ne bii nanga mag nanga mag te sax oto yi façon bi dañoo bari ay paan ndax courant kese la te ñi koy defar nekk guñ ci réew mi sax ne ñaan rek mu bañ a paan de kañaan tàmbale na bañ da ko bañ nee na it laa tajassasu tajassus mooy seet li nit denc fi muy dugg ak fi muy génn fi muy dugg a génn te fi muy dugg a génn ki añaan xoolu ca ba xam jàkka ja la wala kër sëñ bi la wala daayira ba la déedéet feneen rek lay xool gisut feneen gisut fu baax moom taxassus mooy sax bu toogeek moom ci tay boo xam ne ñoom nee na sax mu di ko arrêté bu génnee siiwal ko loolu mi ngi am mooy taxassus tajassus ak taxassus jiim nga nekk fee dañ koy dañuy din tomb rek def ko xaa tanaajus mooy di naatal marchandise moo xam ne danga koy danga cay xiir nit ñi rek naan leen diw wàcce na conteneur te conteneur ba mu wàcce yow sa xel xalaatu dem di ci jëndi waaye danga bëgg nit ñi seen xaalis dem ca des ca rek waaye xel xalaatut di si jënd yow bu ñu la si doon jaay da ngay bañ waxuñu la bu ñu la si doon may sax da ngay bañ waxuma laa ñu di si jënd waaye foo toog ni diw de ma conteneur am ba kii man la moom mat naa seeti de ndax bëgg nit ñi dem nekk ci xaalis ba opération magal gi bëgg a ñëw kenn du dese xaalis ndax la nga la nga jëndoon du jar loolu mooy tanajus yàlla nañu ci yàlla musal moo tax yonent bi ne woonaat ci beneen xadis maa ngi leen di dénk ngeen moytu kañaan ndax kañaan day lekk lu baax li nit yoroon di ko dindi ci moom ba mu set wicc ni sawara di lekke matt ba yàgg sax mu ne ni sawara di lekke am ñax mu tooy ñax mu wow ndax matt léeg-léeg mu tàkkul yàgg waaye ñax mu wow moom bu ci sawara di jaar rek léegi te duutu xam fu mu jaaroon ndax gaawaay gaaw gaawug lekkam am ku ko way ne ki ñuy añaane kat boo déggee nit di añaane nit mooy lu baax lu mu am lu munta am moom rek moo xam muy xam-xam wala kër gu neex di lekk lu neex guddeeg bëccëg wala boog col mu rafet wala boog jàngoro joo xam ne saa bu ñëwee tegg këram wala boog mu yéene woon ko kenn bañ koo tàgg mukk tam doon ku tabe ku tabe moom bu bu yàggee ci ab dëkk lum néew néew dana am ñu ne diw ak a baax ak lim ma defal moo tax ci lay jeexale ñaankat yu mag yi buñ ma sant ñaan bu ñaanee njëggal seen diggante ak seen borom ba noppi dañuy ñaan yàlla mu jéggal leen seen diggante ak seeni moroom waaye nag ubbil leen seen xol ya fu ca bañ nit wala kañaane nit war a dëkk yàlla génne ko na nga ko génnee woon ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te imaamul busri di ko busri di ko nattali am nañu daan ñaan it naan yàlla yàlla nag ñu wan yoon wi jëm ci fu jikko yu rafet ya nekk jikko ju rafet day làmbaale ay wax bu ko boroom jikko ju rafet fu mu waxee xel dal waaye fu mu jëfee it xel dal ca waaye daanañ muslu lool yàlla musal leen ci waxuma la ñoom ñuy am fu xool fu kañaan di dëkk ci ñoom wala mbañaar waaye ku añaan sax yàlla bu ñu ko xam bay toog moom ba bakk moom grand place yonent bi sallallahu alayhi wa sallama seydina anas nee na toog na bis ci jàkka ji ba yàgg yonent bi ne léegi tey ngeen gis koo xam ne ci waa àjjana la bokk ci waa aljanna maanaam koo xam ne su ma ne leen woon tey aljanna la jógee nii buy ñëw bu leen ca werante ak man ñépp nag fixé bunt yi di xool nis tuuti benn waay ne xoñeet mel ni ku doon jëm si jàkka ji doon jàpp doon jàppe ci jàppukaay yii rek ndax sikki moom baa ngi tooy xib akum ndox ak i tànkam mu ŋàmbu ay dàllam ba mu ñëwee mu teg ko ci benn wetu keno daal di julli ñaari rakka toog bañ julli ba sëlmal mu dem ba muy wax waxam joojee nag seydina abdullahi ibnu amr ibnu al-aas ba ba ñu sëlmalee mu topp ko moom si abdullahi ibnu amar ibnu al-aas topp ko ba waaj dugg këram waaye daal suñ ko mënee wax bokkut ak ñii tudd ci dëkk bi naan dañoo bari alal wala seen kër dafa neex wala dañoo am ay magasin yu mag wala diw ak diw ko jur déedéet benn waay la rek boo xam ne kenn foogutoon ci moom lool. ba mu demee nag mu toog ca kër kookee ñetti fan yoo xam ne guddeeg bëccëg du tàggoog moom ñeenteelu fan ba nag mu ne ko yow kat li tax ma ñëw sa kër waroon nga ma koo laaj. mu ne ko déedéet du ma la ko laaj kër kër taalibe la rek ku dox ba agsi ci rek ñoo ci yam képp ni ko sëriñ bi jàngalee ci naaju mu ne ko dama dégg yonent bi wax ne léegi tey nituk aljanna ñëw ñuy xool bunt yépp ba niñ fa jógee yow kenn yaa dugg si keneen dugg si waatut bi nga ñëwee tuuti rek lañ taxawal julli bu keneen dugg si waatee it ñun gisuñu ko ndax dañ doon julli def naa si kër ñetti fan gisuma la ngay woor lu dul jeex gisuma la ngay julli lu dul julli yi ñuy julli kase kase yam ca moo taxoon mu ñëw ana secret boo am bu tax yonent bi wax li nga li mu wax ci yow mu ne ko xawma ko waaye man day lu waaye am yéene naa la ko duma yéene nit ab safaan mukk mukk ci àdduna bu jëm si bu jëm si ci moom wala bu dox ci réew mi rek mën a yàlla na dal diw déedéet waaye lu ko dalit danaa mën na maa toog guddig lëm di ñaan yàlla mu teggal ko ko moo ko njabootam waaye lu ma gis mu yor ko it dama naan yàlla yàlla na nga dolli diw lii mu yor ndax doo jeexal mu ne ko kon noonu nga ko amee mu ne ko xawma lu man daal yëguma ko waaye loolu daal moom sama jikko la moom man daal waaye am yéene naa la ko kon boog mooy li yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ne xolub nit gëm yàlla gu wér ak kañaan mënuñ caa bokk dëkk gëm yàlla mu mënut dëkk ak dara ci ci fenn moom moom ku dugg si moom bu ko bëggee bu ko bëggee buux mu génn bàyyi ko fa laa yajtamiu fi jawfi abdin al imaanu wal xasad daan na it yi ñuy dégg ci ay réew te bëgguñu ma agsi ci réew mi jar na ñaan jaru ko jar na ñaan ndax musiba bu mu soree ba nga ne bokkuma ca waaye li tax jarul ñaan it mooy suñ defaroon jikko yi ba kañaan jeex rek dara du agsi loolu wax yonent bi la laa yazalu laa yazalu naasu bi xayrin maa lam yataxaasadu kon lu gàtt la ci lu baree bari waaye kañaana nga noonu bokk yi kañaan nag kum dal mboolem jikko yu mag yi nga xam ne lislaam da koy bañ te sëriñ bu mag bi leeral ko ci ay téereem yu baree bari détaillé leen leeral ko bu ci nekk mu tas ko ba ca jiitu mooy fen werante jëw naw jëf ak ràmbaaj yooyu yépp ku añaan mënu ko wuute ndax ku añaan dana werante ci diw moom moom nangam wala moomu ko moo ko fay na ndax bor ba wala fay ko oto bi daa bari paan wala du bari paan ni ma ko waxee léegi rek ci yo- loolu lenn la ci rek du jublu mu mën a wax oto lépp lu nit am rek waaye it bu yàggee dana wax loo xam ne du dëgg fenkat lay daal di nekk jëwkat bi muy doon moom mooy toujours saa su nekk li muy wax ci nit ki nit ki du fa nekk ba noppi di bëgg nag ñëpp yéene ko li mu ko yéene moom waaye kuy naw jëfam la ndax day def ne moom dong moo ne ci lu ci ci li ci li ñu war a nekk ñi ci des ñëpp dañoo juum waaye ab rambaaj lay doon it ndax kum ñëw ci yow wax ci yow wax ju rafet a rafet a rafet buy dem loo wax ci diw bu la rëccee ba nga wax ko te jubluwoo ko ci it bu demee tawee ko ba mu ne tasar mu yaatal ko yàlla na nu yàlla musal ci kañaan kon ni ci nit di mucc nag moom la sëriñ bi waxoon ne moom la ñuy mucc ci jàngoro yu bare bare bare bare bare képp koo ko koo ñaaw ci moom njort ne kii ku añaan la rek tàmbalee la wàññi say jéego ci ci moom su dee su daan koy ñëw ci yow it nga tàmbalee wàññi say jéego ci bu ñëwatee soo ko munta ñàkkee ay teggi nit ci ne bul ñëwati sama kër it nga fasal ko sa kanam ba mu xam ne kii tey moom bégut waaye nag na la wóor ne bu ñu demit dara la jóbbaale moo tax mel na mag mu dëkkoon fii ci Touba ku siiw la daana def ku ñëw fi moom soo tàmbalee wax ci nit lu dul noona mu ne la déet da nga ko xamul rek de jaxasoo wuleen na ngeen war a jaxasoo waaye kooku loolu du jikkoom am na koo xam ne mi ngi dund moom yàlla na fi gën a yàgg dalay bàyyi ba nga wax ba àggal mu woo koo ko téléphone koo ko ñëw mu ne ko waxaatal li nga doon wax ci diw mi ñaar lañ ba ñett ñu siiw ci dëkk bi diw mi yaa doon wax ci moom nangam ak nangam àggale ko dafa maa desee na leer loolu it aw yoon la woo xam ne bu ko ñëpp jëlee kenn dutu jëw fi kenn kenn dutu añaane kenn su ko defee kañaan ci kooku lay yem yàlla alak ko yàlla na yàlla wàññi ñëpp ñi nga xam ne yàlla dafa leen teg jàngoro ji te saafaral leen tam bañ a dalati benn jullit yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin